صدق الله العظيم asalaamaaleykum sëñ Samou Seck ñu ngi nuyu bu baax la ziar la ndokkeel ci liggéey bi la ñaan yàlla ñaan yàlla jëmale émission bi kanam ah Sadio dafa sàkk woon fi ñu présenté mbooloo mi gannaaw loolu ñëw ci historique bi jàkk ji ak ñu ko ŋànk depuis jàkk ji bi ko ñu sosoo ba léegi ñu ko yàgg a taxawee bu suñ jonee yàlla teg xam naa dañu ñëw ci présentation bi euh, ki jiitu ci présentation mooy imam mu ngi ni toog ci mbooloo la euh, teg di bàttaar ak doom gannaaw bu sax mooy dégg nga Cheikh Ndow ak Serigne Mor Ndiaye sa Serigne Sall Mbengue suñu baaru ko Cissé dégg Mor Ndiaye ak Fane léegi Seydane Yacine Diop bàyyi may kere Euh, Serigne Banda Mbaye euh, Alaaji Daawda Ndoom ak Ba Ablaye Thiam ñooñu ñoo war si jotaay waaw Samba Niang mooy Samba Niang waaw waaw ah, sëñ sëñ sëñ Samb xam naa ñëw ci historique gu gu jàkka ji euh, dañ ci waxtaan léegi ak sëñ Mor historique gu jàkka ji jàkka ji wax nañu moo mag ci Sibukaraat gannaaw loolu itam li ko dalee Ngor benn jàkk rek moo ko fi mag wala boog ñu maas yi jàkkee jàkk yi kon xam jàkk jàkk yàgg na mooy premier mosquée à Sélou Grane Baye Ousseynou Sow nangoon nañ ci làmmañam mu ni jàkk ji Cheikh Sidi Hadji Malick moo ko rëdd gannaaw loolu itam Baye Boubou Ndom wax na ni jàkk ji Sidi Hadji Malick julloon na fi booba mu ngi dab dabal xale bi doon jàng alxuraan léegi moom Seydi Hadji Malick bi bi fi jàpp ci julli gannaaw loolu itam góor gi ñuy dem ba paraan nit yàlla moom itam jaar na fi dégg kon jàkk ji jàkk ju yàgg la boo xoolee li ko dara ngor ba ndar benn jàkk la noonu moom biir mu jàkk amat fàll dégg nga imaam bàyyi paate booy juru bàyyi tafsir jéey si bi joxo ci biir dëkk ba gannaaw loolu itam maam moom la fi bàyyi woon moo ko moo fi fekk mu doonu jàkka ji gannaaw loolu Alaaji Babacar Diaw moo moo ko wut ci ci jàkka ji kooku di suñu sëriñ euh, góor gi dafa la nettal nee na boo musaana dem Tiwaawan nga ni foo dëkk ñu ne siwkaa ñu la ana Alaaji Ba gannaaw loolu suñu wóoy jur moo ko tafsir alxuraan moo ko jox na ko ñu jàll ku naw sa xam-xam rek suñu borom dénk na la xam-xam gannaaw loolu Baye Ibrahima Diop mooy wóoy jur Seydaane Yaasin Diop ñuy toog moo ko wut gannaaw loolu El Hadj Ousseynou Ndom moom may ñu sëñ sëñ Modou Saas moo ko wut ci jàkka ji gannaaw loolu El Hadj Moustapha Diaw moo toog ni sonn bële moo fi ne moo fi ne tey di ko taxaw tabaarakallaa euh, naa ngi mu ngi nekk maam Mansour Faye moo topp ci moom euh, gannaaw loolu itam El Hadj Fall gis na léegi moo fi nekkoon léegi te bàyyi mbay wutu ko fi pour wéetal yi ci jotaay mu nga am ci gannaaw loolu soo ji waxuñu naaj ak suñu mboolu ustaat mi nga mi nga bayatee dégg nga ñëw ci village bi. village ci koñ bi ci jàkka bi mooy bàyyi kenn si. waaw gannaaw loolu bàyyi góor a fay moom fu mu boole. bàyyi ànd ñi bàyyi bay geere daaw du doom ci village yi mu daal Diouf mu daal naar buy. suñu bànn bàyyi nii. moo tax ne sulu bu leen. ñoom ñooy chef yi Moussa jaar ci jëkk moom Baye amoon Samb Baye Amadou Samb mu ne ko borom dëkk bi gannaaw loolu Baye Gora Faye topp après Baye Abdoulaye Samb après sëriñ Baye Baye Tafa mii nekk imam bi tey ginnaaw léegi ginnaaw moom Baye Bàcc moo fi nekk ci taxawee quartier bi ci ay loxoom la ne léegi ñu ñëw ci mag ñi nga xam ne ñoo ngànk jàkk ji démb ak bërki démb ba ñuy wax ak yow Baye Modou Faye mooy wajur sëñ Mansour mi nga xam ne mooy imaam jàkk ji moo fi nekkoon Baye Moussaf Diop dégg nga Baye Ibnu Julli Samb dégg nga ak Baye bu ndaw mu mag suñu wajur euh, di wajur ci sëñ Mori Moussa mi la dalal tey Baye Oumar Sy dégg nga ak Baye Baye Mbaye Kéré mu tànn na ko Diop ñu jëloon moom tam ci magi jàkk ji la bokkoon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 Baye ak Baye Malick waaw Baye Malick Jonn dégg nga ak Baye Modou Fall waaw Baye Malick Jonn mu ngi ne ak Baye Abdoulaye Thiam moom la moom moom moo moo kii léegi gannaaw loolu itam Baye Matar Samb moo dëkk kër gi jàkkaarloog jàkka ji féete ko ndeyjoor Baye ci délégué de bi bi fi nekk léegi ak Sadio Goudia bi ci gàttal sëñ Samb Seck ñoo ñoo ŋànk jàkk ñoo ŋànk koñ bi kon ñoo ñoo féete jàkk ji kon li ci gën a mën a jàpp rek moo di ni taw ñu ci njëlbeen mooy jàkk ji li ko dalee ngor ba ndar benn moo ko fi mag wala ñu maasoo mooy jàkka xaari amal faar kon jàkk ji yàgg na ñaar nit yàlla jaar dem ba ko daal ci gàttal daal sëñ Saal loolu mooy histoire bu jàkka ji xam naa dañuy bàyyi imam mu développé moo ko Oustaz Mor ñu wax ni ormay jàkka fa tabaarakallaahu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu teew ñëpp di nuyu waa koñ bi fa tabarakallah di nuyu waa sëñ di nuyu itam waa télévision bi euh, di wax euh, ci ñaari tomb dina àmbaale li mu wax léegi te mooy adabul masjid dawrul masjid d'abord la wax te mooy rolu jumaa wala rolu jàkk ci koñ wala dëkk mm-hmm. danañ ci wax tuuti danañ wax itam ci ngëneelu tabax jumaa walla def ci sa loxo euh, rôle bi jàkk ak jumaa di joué ci koñ wala dëkk bu mu ne mooy sécurité la bépp dëkk bu am jàkk rek am na sécurité am na kaaraange ci yàlla subhanahu wa taala euh, ndax yàlla moo wax ni euh, jumaa boo ko déggee wala jàkk néeg la te néeg boobu maa ko moom wa anna masaajida lillaahi jàkk yi yàllaa ko moom kon yàlla bu amee fu muy dëkk di dal mooy jàkk yi mu ni wa ja'alna al-bayta masaabatan linnaasi am amnan mu ni maa def euh, euh, néeg bee nga xam ne moo jiitu ci néegi yàlla yi ci àdduna muy masjidul haram maa ko def muy sécurité ak dellukaayu nit ñi bi maanaa fa la ñuy dem ci wàllu umra fa la ñuy dem ci wàllu aj ak mu ne wala jamono ju ne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 bu jullee këram am na julli waaye ngëneelu waa jàkka du ko am te yonent bi sax dafa ne salaatul jamaati tafdalu min salaatil fadli bi sabiin wa ishrina daraja nee na julli mbooloo ca jàkka ja moo gën julli kenn ci ñaar fukki dara juróom-ñaari daraja daraja mooy barab bi nga xamee ni école jàngukaay la mais yarukaay la moom jàkka ndax bu ngi seetloo ci lislaam laataa jàkkay taxaw ci lislaam daarul arxam moo fi nekkoon di école fa la yonent bi daan dañuy jàngal principe islam di leen di ba yàlla dogal ka an jëmi sahabat rasulullah mu tuubee la ni xanaa foo mu suñ barab léegi làqut fi aw yoon ay roxo ko mu nekk historique bu ko defee ngi dem ci yàq ji nekk université en même temps jàkk aussi koñ bi ndax bu sëñ Moustapha ñëwee di imaam euh, benn bis bu mat sëkk juróomi waxtu gisuñu diw danañ laajte anam boo ko defee su fekkee dafa tukki ñu ñaanal ko moo ñeekoo jàmm bu feebaree ñu dem seeti bu amee aajo ñu dem taxaw ci aajo kon loolu jàkk da koy vie ci koñ muy lu am solo jàkk aussi normalement fi lañu war a tasise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 fi lañ koy defaraat defaraate ay xuloo bu amee fi jubale mboolem ñi nga xam ne dañoo xuloo woon ba ñu ànd nekk ay dégg nga muslimina di ay jullit di ay mbokk di ay firaat fii daan takkee drapeau xeex kon barabu jàmm la ndekkee ndax jaamu yàlla fi ñu koy def te jaamu yàlla jàmm la mais barabu xeex la fi daan takkee drapeau euh, xeex jox ko ki mu koy jox ni ko dem leen ngeen xeex yi nangama nangam loolu ci jàkka la daan faral di kon jàkka loolu am na solo jàkka mooy barab bi nga xamee ni barabu toilette la ndax ku fi ñëw xusoo ziinatakum na ngeen sañse sañse seen toilette bu ngeen dee dem ci jàkk ji ngeen jullee ji waaw sori na jigéen na ngeen sañse kon kenn warul sol loo xamee ni bu dee takk sëy la doo ko sol jaaduwul du waaw bi ci mooy barab bi nga xam ni dafa dafa war a am gët dafa war a am xet bu neex dafa war di xeej lu neex yaani mawdew tatayub wa tabaxur barabal barabal bu dañ ko war di eh, eh, xeegal ak gët ndax yonent bi saa sa moo wax ni ku lekk xam ngeen ni laaj dagan na ku ko lekk na beru sa jàkk bu mu ñëw ndax xeet boobu la ñuy bañ mu lor malaaka yi wala mu lor mbokki bi kon kay tere eh, laaj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 l'islam moo am gis-gis l'islam mooy santaane ñu dañuy hésité. l'islam nee na na ngeen dugal sàpp bi. Euh, yaa ngi yontu saa sa moo ko wax euh, salaasam mu ni euh, nu mu ko waxee ci hadis ba sawwu sufuufa fa inna taswiya sufuuf min tamaami salaa yamali leen sàpp mu jub te ba ngeen taxawee uddu bi ba keroog ngeen naan asalaamaaleykum bu kenn jiitu. loolu mooy iqaamatu salaat na ngeen si yàllale sax bi sa yu position ngeen jël ndax loolu ci julli ji la bokk te yonent bi salaatu waxaan na ni inna allaha la yanzuru ila safil a'waj yàlla du xool sàppe bu tënk kon ndekete sàppe bu mu mën a doon moo xam première le deuxième troisième ba sàppe yi jeex bu ca dëng yàlla dana leen ges du leen gesu du leen xool daf leen du mooyu kon nañuy góorgóorlu veillé ci sàppe yi muy jub xoj fa tabarakallahu loolu ci jàkk rek nga mën a am waaw gis ngeen soldat yi bu ñuy maañ ma ngi sàppee ku ne xam na ko kenn du bay jima jubal ba maaj ja jeex góorlu ñoo ci waroon taxaw fa tabarakallah rencontre bu am diggamal boromam du xam rencontre yaa ñëw fekk yàlla subhanahu wa taala toog ak dossier yi malaayka yi waaw ñu ànd sa diw teew na ci jàkk ji ci wax sàmm bu ñu lépp yow ngay daje loolu rencontre la waaw xoolal ki gën a ci dëkk bi ak ki gën a fi ñooy sosoo ay tànk mu di ko laal mu di ko laal te du ci man dara ko dee wàcc moom ki am alal wala borom dara gi wala borom xam-xam bi wala loolu la lislaam bëggoon ci diggante julli ñi mu tur bokk yàlla waaw nekk mu yàlla mu saawaa eh, mën a am seen diggante aussi ñu ormalante joxante cër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 dafay jàngal julli dal ndax gi nga nee na la booy ñëw sax na nga dal bul daw de ndax boo dawee mën nga fakka salu daanu te bul xam luy xew mën nga gaañu nee na kon doxal naan loo fekk ci nga nga indi ko lu la caraw nga indi ko bi maanaam nga ko moom jàkk aussi dafay jàngal nit euh, li ñuy tudde sa euh, am ak dal dafay jàngal aussi jullit Euh, dégg nga jéggalante ci nga xamee ni dafay faral di xew suñuy diggante waaye jàkka dafay jàngal jullit muñ muñ ak muñalante ndax wala asri boo ko jàngee daf lay indil loolu wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr dañuy dénkante dëgg te fu jàkk ji rek la gën di mën a euh, amee fa tabarakallahu di dénkante muñ di dénkante euh, li ñu tuddee dëgg jàkk aussi mooy barab bi nga xamee ni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 Euh, mën naa am doo ko am jàkk aussi euh, ci la ñu gën a yaakaar ni jaamu yàlla yi dana dal waaw comme ni nga ko waxee léegi ci ñaan yi noonu la amee même ci jaamu yàlla yi kon loolu lañ jotoon tënk ci wàllu rolu jàkka cib koñ muy rol boo xam ne mu am importance la bi gi mooy ngënee la tabax jàkka wala sa dërëm ci jàkka wala def ci saw jàkka wala sax sab xalaat Euh, dundal jàkka ci wàllu koy mokket indil koy mokket ak itam di ko leeral di fay koor ak di fay ndoxam yooyu yëpp dafa am ay tuyaaba yu mu lay jural yoo xamee ni kenn xamul mu ak itam di ko setal ak itam di ko gëttal di ko di ko xeeñalal lu neex cuuraay man dama daan gis cay jamono ci suñuy wayjur jàkkee dañu leen daan cuuraay waaye man léegi gisatuma ko daanaka ne kër yi rek la ñuy cuuraay ak néeg waaye jàkkee moom amatul daanaka kon de yaasin loolu seen ci góor ñi nga xam ne dafay tax yi mu am tey jigéen ñooñu la bàyyi ndax war a kullin azim imraatun azima nee na góor gu ñu fii tudd te wala ngay seet di quartier wala ngay man jigéen ca jëkkër ja moo def loolu yow moom la de du yow waaw kon nañu leen tudd nañu leen bàyyi xel fotoal seen taxawaay am na solo ñi la waaw kon yàlla yàlla euh, bokk na ci euh, ngëneelal jumaa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 naka noonu di fa tudd yàlla tudd yàlla moo tax nag ñu tànn ñaari waxtu yoo xam ne yu sensible suba wala waxtu gannaaw timis ñuy tudd yàlla ndax nee nañu nag ko def ci ko jëru ñu ne nag kon nañ ko def ci lu ko jar tudd tudd yàlla julli jël sa sam jéggulu voilà muy diggante bu buñ jullee suba ba jant yi soo waaw ndax boo boo ko deful la ngay def tëdd nelaw wala nga nekk ci loo ne amul solo wala boog dégg nga tàggu sànn wala boog diggante timis ak jéego waaw donc jàkk dañ fay sabage gis nga inna awwala bayti wudi'a linnaasi boobu ma waxoon la la si bi bakkata mubaarakan kon bépp jàkka barke booba am ca masjidul haram mu ci yàkk jooju waaw jàkk yëpp masjidul haram tànk na leen ca barke ba tànk na leen ca barke ba waxu den tànk na leen ca njub ga moo tax boo fi ñëwee da ngay jub boo fi ñëwee da ngay jub waaw wa rahma lil muminin yërmande la aussi yërmande nga nekkoon ca masjidul haram booba tànk na ko mboolem jàkk yi adduna bi ndax al masajid kullu kulluha euh, buyootu la masajid yëpp a yàq yarfau ibrahima alqawaida min al bayt wa ismail rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim nee na gis nga ibrahima alayhi salaam wa ala taslim keroog bu muy yëkkati xam nga rafa ko arab waxee surtout alquran tudd mooy ndekkee fondement ba pare woon na fondement ba am jeex dara lu ko détruire dara mënu ko yàq ndax fondement ba ay malaakaa ko fondement muy masjidul haram waaw keroog ba nga xamee ni toofaan na ñëw na màbb ko muy toofaan ñun yàlla ndox na euh, ñu dem jëmmi jamono yàgg-yàgg yàlla soxla leen ba taxawaat ndax moo xam euh, euh, hikma bi mu sant Ibrahima ni ko defaral na ko yëkkati ñu mu ni keroog moom ak doom ji ñoo ko kii mooy chef maçon bi kii mooy apprenti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 Euh, tabax boobu mu ngi taxaw ci ay mbir ndax taxawal néeg ngir yàlla dafa am ci cëslaay yu muy sukkandiku loo xam ne mooy tax yàlla na mooy danga koy def euh, ngir lan gëm yàlla premièrement gëm yàlla ci lay law nga sellal yéene ja dërëm bi sax boo ko joxee sellalal yéene ji booy joxe milliard sellal yéene ji booy taxaw di tabax sellal yéene ji moo xam maçon yi koy yëkkat la wala ñi leen di dimbali wala ba waa koñ bi et cetera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 yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla waxoon ko ni la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquuma fiihi fiihi rijaalun yuhibbuuna an yutahharu wa yallaahu yuhibbul mutahhiriin mu ni boobu masjidu Qubaa ak masjidu Diraar parce que ñaari jàkk yi ñoo amoon ca jamono yooyu ca Madinatu Munawwara benn masjidu Qubaa la jàkk yi ay jullit la ñoo ko fondé te ñoo ne gëm yàlla la ñu sell la ak masjidu Diraar bi nga xam ne ay saay-saay ñoo ko taxawoon pour dévier jullit ñi ko barabu euh, xeexu xeex l'islam xeex euh, yoon bi xeex saxaaba yi yàlla ni ko nag foofa bu fa dem waaw kon euh, jàkka ji nga war a dem mooy jàkka dañu teg première pierre te teg ko ci ragal yàlla ngistal amu ca waaye njëggatal amu ca te mooy mas lu baax ba ñu teg première pierre bi comme jàkka ji ak yeneen jàkk ju mën a doon nee na jàkk yooyu mooy gën a yey ci yow yonent saasam ak yow julli bi nga taxaw fa julli fa wala nga taxaw nga nekk fa di fa jaamu yàlla subhanahu wa taala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 jàpp na la ma ca jot a xam nee ma mu ngi jëkk a dal fii ñuy wax jëm ñaaj jëm foofu la njëkk a dal ba mu fa jógee mu door a ñëw si buxtaan bi mu mbokk mi nga xam moo dëkkoon Tëngéej euh, te gars yi atte ko jugé woon ko bëggoon ko rey bi euh, à mu mujj daw ñëw si buxtaan moom moomoon gox yi yëpp sax hmm. moo ko may barab bii Sega Ndiaye Sega Ndiaye yàqu laal dama dossier dafa yàqu ba mujj lu bëri réer ma ci moo ko may barab bi mu sam fi jàkk def ko daal moom ma mu dangal ko tool muy mu defar liggéey di jàpp yàlla ak itam di jàppale loolu itam bokk na ci li ma leen di jàppale ci histoire bu mbir moomu kon jàkk ji mu ngi nii am na eh, eh, du ñu wax ni jàkk kenn moomu ko kenn moomu ko mooy lan kenn moomu ko di ko dondal ku la neex waaye am nañu ko moom ñoo xam ñoo koy saytu ñi koy saytu nag mooy ndono yaa ak ñi leen ci jàppale seen waajur bi ñu demee ba nga xamee ni yàlla dogal na xam na ni euh, euh, wàccoo naag borom subhanahu wa taala ci yu bëri dafa jël lépp teg ko ci loxoom puisque noonu la leen mag yi doon jëflantee moom Baye Baba Diaw ak Baye euh, Babacar Diop. Baye Baye Ibrahima Diop ak mag ñi mel noonu waaw kon. ci ay loxo la ko yàlla yi teg loxo yooyu ñoo koy saytu di ko toppatoo di di ko di ko dundal di tëjëkkati gi loolu sañ-sañ boobu moom la ko yàlla dégg tabarkalaaw kon daal lii la ñu tënkoon pour bañ a jël temps ndax tey la ajuma euh, di rafetlu nag seen taxawaay aussi di leen jéggal di jéggal mbokk julli yëpp métti wuñ ci dara parce que dañu xam ne lu jot rek yomb te itam lu mu mën a doon temps la am lii mënu woon a am lu dul ci temps bi kon yal na ko yàlla nangu yal ko yàlla barke li ngi seen biir yal ko yàlla nangu yal na ko yàlla may te mooy mu dem a dem ba fii quelque moment moment bi nag man na nekk ñu digal suñuy caabi inauguré ko. ñun ñëpp kenn bañ a manqué. yàlla ko yàlla def. fa tabaarakallaahu imaam bii jiite ko ay jamono yu yàgg yàgg. njaboot ñu topp ci gannaawam. ba fa tabaarakallaahu ñu dem a dem ba ba nga xamee ni. Ah, euh, euh, jot na nag ñu jébbal leen seen yëf ñu jébbal leen seen yëf fa tabaar yàlla ko yàlla def yàlla ko yàlla manqué. ñoo naan euh, fi rajo Sébikotane.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 dal dinañ taxaw. ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla. comme gën yàlla lu ko yàlla boole. ëllëg. ñu gërëm ustaas boo xam ne nag ngërëm di amul am ndax borom xam-xam boo xam ne soxorul te ngistalu te tamit li ma xam ci moom ci si ko daal xëccul benn yoon jëm ci boppam constat naa comme borom xam yu xam yu bare bare bare di toogoon ma ne kii lii lii ko mooy nangam baax na am na xam ne lii ko mooy nangam ñëw ci moom mu la taxaw fenn wala sama baay wala nangam yonent bi yàlla yonent bi lay kon alam daal daal daal man li ma ci ci su ma ci toll ci xam-xam moo xaaral sax ba léegi dugg moom mosuma sax tuuti xalaat dem màkk ñëw tukki bi tukki mu la génn réew loolu fekk naa ko ñu ñëw ni ma dégg ci ji su ma góor bi ma fekk mooy maamu kii maamu ñii ñi toog mooy seen maam yow alaay mu si Mamadou la may noom muy góor goo xam ne tamit ah ki ko fi tegoon Serigne Thiénaba Seck <laughs> mu nekkoon représentant fii lu ci biir dëkk baa tubaarkalla kundu yi boo bëggee dem cinquante foofu yëpp ay taal bi mu nekkoon góor bu baax sama papa mu ñëwee ñu ñu ñu boole ko moom moomu tamit góor gi alaaji Mansour si mu mag ma muy tundoo borom daara moo ko fi yabaloon moom tamit ku ci ne bala kilifa dafa jox tool nga ne di bokk ci ñuy leeral kon alhamdulilah rabbil alamin muy góor gi bu ma acté ci moom muy góor gi mu la ma ndomb mag ñi nette lañ ma ko te li ma fi dégg yëpp yàlla yéen ma koo dégg ma fekkuwuma ko waaye 47 mu ngi fi léegi góor gi moo la mën doon moom dama la joro xam ne li laa mu ngeen yitteel ko ba mag ñi nen ba léegi loolu sama bëttëgu ci mais ne nañu daan ndaw buy wàññi fa dox hmm. yoon tool yu baax bu tollee mu jóg taxaw door a nga ne alhamdulilah foo wuloon folu wuloon mm-hmm. sa yére yu baax nga nekk jékki ne ko ñam yàlla la ko kooku fuwul folu kooku moo bi mu lam ñoom ay kaata mu ne si jox lu bare bare bëri li mu dund ak mu yóbban ci ko la naa ci lu bëri maag doom ñoo daan ànd fii bon ci wa wàllu jàkk ji bi mu fi ñëwee moom laa fa fekk ba mu xawee man a dem mu jox sama papa ku ñu xalaat Babacar Dia bi ma leen kër gi tamit bi mu ñëwee Babacar Dia bi ñu ko joxee kooku ñu la wax alaaji moom moom fii ni yaa moo ko moomu googu ku tuddee léegi bi moo ko nekk ak yeneen doomam donn ko ku daan ñëw fii ñu fi njëkk ñëpp ne ni la may kër fii mooy këri ko. Mm. ku seen jàkk ko moomam. ndax nit aay ma ko mu bàkkoon ci loxo bi mu dee ay doomu ay jalbaatam ñëpp xam naa leen ñu ñu mu seen seen jox leen seen àll coow jibul moom def na loolu ba ba ba dem bu ko defee ba muy góor gi moom la mel ne nekkee ba mu wëddatul góor gi ñu wax Babacar Dieng nekk fi bi fi nekkee tamit mu teg fi koo xam ne mooy ak ab rakkam di jarbaatam doomam sax ñoom Ibrahima Diop Alaaji Ibrahima Diop kër ma ngi fii mu nekk bi di leeral. ba Dakar nekkoon di jàngale ba ñu nangu ko ba def ko mu nekk imaamu raat ñu ko ne tamit doo ko mën a fay mu ñëw jox ko jox ko ndoom ñuy xam benn kat am na même yu ñu ma ko tee ndoom bi quatre-vingt-cinq am déet kañ la man màkka 2005 mu bàyyi ma fi ne ma bon euh, ma ginnaaw ba bopp euh, utal ba ma ñëw mu ñëwee la ma ca man def ko waaye man koo ma yónnee dama naan jox ma ay tànk hmm. jox ma fu may nii de ma jox ma laaj ko xut ba mu jox ma ko ma seet sama rek bu mën a bindal ma ko noonu laa koy man du ma ñi sal du ma wax lu ma du ma hmm. du ma suul ñëw hmm. bindu ma sax xut ba ba ku ñu wax Mamadou Sy muy imam Mamadou Sy ba tey moom laa tafal sa ci sama bopp léegi na ma doon def ci boo ñëwee baral ne leen nag commencé na commencé na may tag lu tax ma bàyyi naa julli moom ñu topp di ñëw kon alhamdulilah moom loolu boo fekkee ci jàkka ji mm. ba góor goo mu jox ko ba alaajo seen doom moom lu mu jox moom noonu la demee ma noonu laa li ma dégg ci jàkka ji noonu laa ciy dégg li ma mm. mooy loolu ba suñu doole tey kon na duñ ko euh, buñ ko mujjee tabax bi ñu def alhamdulilah sànq nga fi def boobu dañ ko fi dafa dàq yàggul mais ban la woon ni ko tabaxee mu nekk seman nag mille neuf cent lañ ko tabaxaat walla léegi mu yàgg ak seen kenn bi doon amal ci feere mm-hmm. moo xaw ne mën na fi sax demaat ba ca kanam dana mm-hmm. waaye dañ ko si daal bi far yàqu bi ñuy dindi daal bi far ñu jaara ci leneen loo xam ne lépp yëngu mm-hmm. xam nga ko bàyyi ko demaat ak daal day gën a kii loolu tax ñu daaneel ko te amuñu doole koñ bi amul ginnaaw ñu ko indi kër yi. gan nga fi dara amul toolam nii bu mag. 3 hectares na bu mag 4 hectares 5 hectares. toolam ngi bu mag 4 hectares 5 hectares te kër gi ko tiim loolu xam nga bu buñ ko dëkkoon tey. ay mille mille mille maison mën na fa nekk. loolu yëpp kenn dëkku ci ko ay tool. ay fukk tey dindi amuñu loolu loolu loolu moom ñooñu buñ fa dëkkee ni ñeneen dëkk yi dëkkee dinañ daan jëmmal jàkk ji waa Adama wax ko daanaka wax li ci xam mooy dëgg. dañoo amul nit ñu fi mat kër bi boo nekk. bu fekkee ak facteur amee benn lay doon ku ko wax dina wax léegi baal loolu ci baal fa jóge amul fonctionnaire kon xam nga kooku ñëbëri lu bëri da nga jàpp yoo xam ne foog ne di tund si man kii indi bu weer dinaa def nangam maa dina ak jënd ak jënd ak jënd mokke di même mokke di ab jaabu mënu ko ñoon jóge ci bu fi nekkul su ma métier mooy mbéy comme comme mbéy bi ma wax dañ ko dañ ko dañ ko ànd dañ ko gannaawal. moo tax ma ne amu métier. waaye nag yàlla comme yàlla ma. kon alhamdulilah nekk nag di jéem ba ñu mujj dara ñu tàllal nag loxo tàllal loxo bi mooy li la fii ndax tàllal loxo ak bëgg lu lu yaatu lañ def ba mbokk mi di suñu doom di ay mbokk ak ñu sant ku mel ko bu ñu ko waxee waxtaan li mu wax doy sëkk. nu jottali leen ci toxam tàllal loxo yi nag fu ak toll ku nu ku mel ne siiwala nu lu nu ci am loo xam ne yàlla la dafa dafa ko lu nu ci amul it yow sa yàlla ñaar ñaar ñaar yëpp daal taaloo taaloo kenn du dul fii kon loolu mënul la ñu lay baax a baax baax ñi fi nekk nag ñii ñoo ngank jàkk ji góorgóorlu bu baax wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñoo ko man ko àll te ak bu nam nu jàppandu moom mu ci sonn di gone ndax day xaar rek daal di wax rajo bi yow moom moo xaar sa sa ne moo moo ñi de ay ñi ñooy mag ñi nga xam bu fi nekkee julli leneen leneen nekku ci kon alhamdulilah rabbil alamin noonu la man 1941 laa ñëw fii daal fi alxuraan papa ci jàngale ma ay téere am na sama papa jàngale di saala moom ma ko doon topp xuratul ko yónni teen jàngal na ko bu benn mbokk bu jàng fay la téere mais ma ko wax benn waxtaan ma ko wut ca moom aw ma ko mu ma ndax ko am taal bi mën cee jariñu mu ne ma téere bii ngay wax de góor gu ma dee mi doon wax tey baayam mu ne nee nañ ko yónni ndax lu baax a baax a baax ci téere bu ndax kooku ne jaay Ibrahima Diop topp la ma ci lu bare bëree bëri hmm. ma ne ci këram mu jox mu bitig ma ci jaay du ma fay bu àjjuma ak àjjuma ak àjjuma ak samedi hmm. ba dibaale see ñibbi ñun ñëpp koñ ñëpp moom turi mu mu lépp lu ñu koy def jafe ko fay mu ñëwee su saak mu fees xam nga Ndakaar moom ku ne xam ne yow laata dafa om hmm. waaye bu ñëwee di ko demee di attaay di naan ak ku bëgg jàng ci jàngal moo yoroon jàkk ba jox xëy jox ko ci ñu ëseen jox di magam di xaritam ànd ak moom di ko yéene waaw di ko dimbali moom wax ma dégg moom mi ñu ko daan defal moom ma ko dama gis ci bi ah ñun mënuñu laa wax dëgg yàlla waxtu dafa xaw a xat yéene bi itam mooy jumaa jumaa lañ koy waaw dañ fas ko nii te ki nga xam ne mooy aji ji ma remplacé nit ku xam ne bu ñu ko ne waatal wax ko yàlla moo ne ma bu leen neexee mën ko di bu leen neexee mën def ko jumaa loolu moo ko maa koy fekki kon nag noonu war loolu noonu dëgëral ko far léegi dañ ko war a dëgëral fas koy def def jumaa waaw imaam yaa ngi fi di borom xam-xam loolu yëpp rafetlu nañ ko ne war na mën a nekk boo ko ñëwee gulub kon nag alhamdulilah man na comme kenn war na ci am kàddu te waxtu bi dafa jot daal moom ma yem foofu waaw waaw waaw waaw waaw. kon kay Diop Diop. waaw waaw waaw. sëñ bi nag xam nga moo waroon mbokk yi waaye dafa kii kilifa yi ñoo mën ko réew mi ñoo ko diine ji di ci jël sëñ Babacar Sy Mansour xale si baal ko Tivaouane dana du ñu sàkku ci moom ndimbal pour suñu jumaa ji egg gannaaw boo fee waral si Alaaji Babacar Diaw euh, di ci bu Thiénaba di nuyu au passage sëñ euh, jarbaat ci kër gi ni yaar nekk ni toog sëñ Laayeen sëñ Jaabal dégg nga ak mboolem kilifa diine yëpp rek ñu leen di ñaan fii ñu leen di woo ji incha allah. jumaa ji incha allah. fa tabaaraka la kon Seyda Aliya si mooy mooy mooy tëj incha allah moom oustaz la. dégg nga di yaa Seyda yow émission. yàlla na yàlla defal Bachir. bismillah. الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ngi di nuyu bu baax kenn ku nekk mën na jox sa wàccuwaay ñoom suñu waxee ba pare sax waratuñ ci woon a teg waaye ndigal la rek yoo xam ne mën la ñàkk moo tax ñu yëkkati kàddu di gërëm suñu ustaas bi fi jóge léegi suñu kilifa ustaas Mor Ndiaye di dem si biir tey suñu kilifa Imaam Moustapha Diaw ak suñu kilifa Baye Tall moom ak suñu kilifa yi fi des ñu fi toog ñëpp ku lim rek doon jum waaye ñu matal ñu leen di ziar bu baax di leen ndokkeel di ñaan itam li ñu fas yéene mu jumaa ji ñu bëgg a taxawal yàlla ko yàlla mottali te yàlla mayu si ndam mm-hmm. ndax borom bi subhaanahu wa taala moom wa anna masaajida lillaahi na ko léegi ci biir waxam xam naa damay dolli ci waxam rek li mu wax moom doyoon na sax ndax li ñu waroon moom wax na ko yàlla subhaanahu wa taala moo wax ne jàkka man maa ko moom wa anna masaajida lillaahi jàkka man maa moom falaa tad'u ma'a llaahi ahadaa bu leen ci kenn ku dul man kon bu ñuy woote si jàkka woo woote wuñ ko ngir kenn dañ ko woote ngir yàlla ndax yàlla moom moom jàkk moo koy téel bopp moo koy boppam ñun ay ndaw lañ rek yoo xam ne dañoo nekk ci kaw suuf am benn mission boo xam a dox ci kaw suuf boobu taxawal jàkk si la bokk ndax yàlla ne nag ku taxawal jàkk maa lay fay oustaz wax na ko sànq yonent bi sallallahu alayhi wa nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man banaa lillaahi masjidan banaa llaahu lahu baytan fi janna kawal jàkka si suñu borom dina la néeg sa aljanna mm. kon ñun ñi yàlla may ñu tabax ji ndax ñu bokk si tabaxal néeg ci aljanna mm. yàlla ñu ko yàlla defal mm. ñuy woon suñu mbokk jullit yépp mm-hmm. xeebuñu dara ndax tabax jàkka nga romb nit ki mu tabax nga yenn paan ndox ñu sotti sax bokk nga si ñu ko tabax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 loolu ñun ñëpp la war warul kenn rek wàcc ko ca des duñu guddal ndax waxtu jëm dem jumaa jot na mm. te suñu imaam yi dañoo war a dem julli ci jumaa ñu doon lancer message boobu rek ñu tàllal suñu loxo suñu mbokk jullit yi yëpp di gërëm nag waa télé bi ñu tudd Salam Vision Salam Vision ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ñëw bi ngeen ñëw fii saytu si suñu jumaa bi ngir jàppale ñu lancer ni message bi pour mu mun a egg si mbokk jullit yëpp pour ñu mun a xam ne